julli gu xama am solo la rawatina ci jamono jii ñu nekk di jamonoy bàkkaar bàkkaar bëri boo xam ne dafa mel ni taw bu fekk kenn ci ñun ci àll te amul fu mu seelu fu mu jaar tooy moo tax ji jamono jamonoy bàkkaar la bàkkaar dafa soppee ko ab taw fekk ñu ñun ñëpp ci biti mu taw ci ñun su boobaa nag ñëpp a tooy coow li kay mooy gën a tooyee fi ne waaye ku tooyut moom amu fi am na ñu tooy ba ci wóom ñii tooy ba ci ndigg ñii tooy ba ci jumbax ñii tooy ba ci baat ñenn ña nag ñoom géeju bàkkaar mujj nañ ko sëmb mënatuñ koo génnati moo tax Seex na Tijaani Sariif dafa daan wax ne mu jëg jamono ji bàkkaar dafay bëri da mel ni taw bu mu fekk kenn ci yéen ci àll te amul fenn fu mu mën a làqu ba du tooy ci taw bi su na nag comme tooy ta ñàkk na ngeen farlu te ngeen góorgóorlu bu ngeen tooyee ba pare lan mooy wawal seen yére yu tooy yooya mooy su ngeen amee bàkkaar ba pare ana ban bunt ngeen i war a mën a jaar ba yàlla jégale seen bàkkaar ya lu jara yittewoo la lu jara xam la lu jara jëfee la lu jara timit taxawu la loola nag bokk na ci salaatu tasaabeex muy julli sa te moo ci ëpp doole ñuy kafaara bàkkaar yépp julli ji moo ci ëpp doole julli la goog ikrimatu moo wax ne jëlee nañ ci ibnu abbas mu ne yonent bi sallallahu moom moo waxoon baayam abbas ibnu abdul muttalib abbas mi doomi abdul muttalib la baayam baayu yonent bi ak abbas ñoo bokk benn baay motax yoonentou dafa daan tuddé sama baye tax ya amahu la ko daan wax mu woo ko mu ñëw mu ne ko ya amahu alla u'tika am riwaya bu ne alla amnahuka am bu ne alla ahbuka alla af'alu bika asra xisaalin ila anta faalta dalika غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه قطعه wa amdahu saxiirahu wa kabirahu sirrahu wa alaaniyatahu asra xisaalin mu ne ko waaw yow Abbas sama baay tax doo ñëw ma jox la mbaa ma may la mbaa ma defal la fukki jikko yoo xam ne boo ko defee yàlla dana la jéggal say bàkkaar yu njëkk yaag yu mujj ya yu yàgg yaag yu bees ya yi nga tay yi nga tayut yu mag yaag yu ndaw ya yu nëbb yaag yu feeñ ya mu ne ko loolu kay soxla nako ñun timi ñu ne ko soxla nañ ko mu ne ko kon da ngay julli ñenti rakkaa ñenti rakkaa ya am nañu ci tamu ay sar diko teunk am na ca dañ ko tinki ne sar wo jang baxna yow dal jangal fatiha rek sar wo ci tegati ya xam su ko defé ñu wax sar dina la ko wax ñene sar wo jang baxna dina la ko wax ñene kat sar wo jang baxna dang ko tinki ñene dañ sar yi bëgg nga jang fatiha ak iza sulsilati mom nga jang ko ci ben rakkaa a benen ba nga fexé ba jang manam fatiha ak ayatu manam sari yi sàbbax yi mel yu sabbiyoo sàbbaxa lillahi ma fi ma fil ardi ak yu mel nona yo ca jang rek mu bax su ko defé nak bo jangé fatiha ku sar wo man dal gannaaw bi fatiha sar wa jexé nga taxaw bul rukkoo nga ni subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar fuk yoon ak juroom fekk yaangi taxaw so ca ko nga rukkoo wax ko fuk yoon fekk yaangi ngi nga siggi wax ko fuk yoon gaaw wax ko fuk yoon tok wax ko fukki yon sujootaat wax ko fukki yon bu pare nak da ngay toogaat fofa mu nek jalsatul istiraha nga waxati ko fukki yon boko bolé mu jox la juróom ñaar fukki sabbal ak juróom rak'a bu ni nii ngay def su fekke jullee guddi la boo amee ñaari rak'a selmalal nga jugaat kabar indi yenen ñaari rak'a ya su la dañ lay tanalo bu la nexé bo amé ñaari rak'a nga selmal bu la nexé nga ci am ñaari rak'a tok taaya jugaat ënd yeneen ñaar julli ko comme ñu julli subaar yépp baax na mom dal boko bëgge xam gannaaw fatiha ak saar ya ca ñeenti rakkaa yépp am fukki sabbal ak juroom muy subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lol ben la nga waxat ko muy ñaar waxat ko mu ñett muy fukk ak juroom bu ko moye sest bo defati ya xam fukk rek la waye gannaaw nak fatih ak sar ki ñanti kaba ñanti rakaya bu ci nek fukki sabbal ak juroom lay doon nga ko wax ko fukku nga ci ru ko ba wax ko fukku sujjóot wax ko fukku tok wax ko fukk sujjóotaat wax ko fukku wax ko fukku li dal mom ngay defa ka bu ñeuk bu ñaarel bi nona bu ñettel bi nona bu ñentel bi nona ben sabbal bu ne rak bu ne juroom ñaar fukki sabbal lay doon ak juroom boko totale mu jox la ñetti téméri sabbal ku ko def sa bàkkaar yëpp yàlla jéggal la ko ndax yàlla moom benn nga tooñee ko bàkkaar bu mag mbaa mu ndaw mu jéggal la nga tooñee ko bu nëbbu mbaa mu feeñ mu jéggal nga tooñee ko bi nga tay mbaa nga ñàkk ko tey mu jéggal nga tooñee ko bu njëkk ba mbaa bu mujj bi mu jéggal la nga tooñee ko bu yàgg wala bu bees bi mu jéggal la faw kenn mënta génn tooñ yàlla ci fukki façon yi kese fukki façon yi ñu tooñ yàlla yépp la tënk ne ko boo jullee julli ji yàlla dana la ko jéggal yonent bi moo ko joxoon bàyyi tëxam ba Abbas su ko defee na bam ko ko joxee mu ne ko soo ko manee waay waay bët bu set nga julli ko wenn yoon soo ko mënut semaine bu ne benn yoon soo ko mënut weer wu ne wenn yoon soo ko mënut xat mu ne benn yoon soo ko mënut sa dund gi lépp nga fexe ba def ko benn yoon nii la ko ko waxee kon nañ ci góorgóorlu di ko def xadis boobu abu daawuda ibnu majaha ibnu mata ñoom ñëpp génne nañ xadis ba ci seen saxiwu ya waaw kon nag soo ko mënut waay waay waay waay fexeel guddeeg ajuma gu jot nga def ko waay alxames ci guddi ba seddi ajuma ak guddeeg dimanche ci guddi bër ci altine ñooy ñaari guddi yëpp leer nga fexe góorgóorlu ci di ko def salaatu tasbiix comme bàkkaar yi dafa bëri boo xoolee gis te mënoo ñàkk xool boo dégloo dégg mënoo ñàkk a déglu boo laalee boo tàllee sa loxo daj mënoo ko téye boo doxee dox ca mënoo toog boo xoolee gis mënoo ca dara boo ne xoolatuma déglootuma waxatuma ñu fekk la fa sotti la bakkaar ba nga gën a tooy te doon wax ak a xoolee ko déglu kon ay nal mafar li fi sës kon daal tooy mënta ñàkk góor góorgóorlu ba buñ tooyee lan mooy wawal suñu yére yi lañu ñu wawal suñu yére yi nag julleeg salaatu tasbih gilee ci la bokk muy lu ama am solo ko defé kon julli googu julli go am am dole la waye julli nga xamé tamit bi jangal nañu ko bokko na ci luñuy tuddé tuddee sujoodu tilaawa ab jaama bi yalla bu bu yoré njapp di jangal alquran ba hegg ci ayatu sajada yi nek ci alquran dafa wara rot mu sujootal ko ludul mu koy jang ci waxtu yi jant bi so wala mu koy jàng ci waxtu wi jant bi fenk ñaari heure yooya kenn du ca sujjóot boo fa yeggee nag nooy def ñi ne da ngay sote aaya ja ñeen ña ne baat ba rek ngay sote ñeen ña ne jàngal aaya ja ba yegg ca baat ba nga jàng ko ci sa xel mi da nga jàng ci sa làmmiñ wi ndax kat boo ko sotee ci sa làmmiñ ak sa xel yëpp kaamil ba dana manki nga ne wàcce naa kaamil dafa fekk manki na ay baat kon da nga koy teewlu ci xel rek waaye bu ko tudd ci sa làmmiñ bu fekkee da ko jàng heure bi jant bi so wala heure bi jant bi fenk waaye gannaaw tàkkusaan soxagut su jootal gannaaw julleeg suba fenkagut su jootal moog jullee néewayam gannaaw julleeg suba mën nañoo jullee néew gannaaw julleeg tàkkusaan mën nañoo jullee néew waaye heure bay jant bay so ak heure bay jant bay fenk lañ tere ku fa jullee néew boo fa jullee néew sax suulaguñ ko dañ koo baamuwaat jullee ga ci heure yooya su joot yooya nag ñaara koy su yow miy jàng ba yegg sujootal yow mi nga xam ne jàngoo mais da ñëw di déglu kuy jàng te kuy jàng mat na la ilimaan góor la masoor na te nekkut ab faasix jàngalewu di déggale neex ak baatam ba ak bëgg luñ ko ca jox ak la ca xaju waaye yàlla rek tax muy jàng kooka boo yeggee ci ayab sajada te yow yaa ko doon déglu bu sujootee sujootal bu sujootut tamit sujootal aaya sajada ya nag bu Malik fukk ak benn la am na masaa yu ne fukk ak juróom la waaye ala kulli xaal ñëpp dëppoo nañ ne boo yeggee ci laaraaf sa mujj ak jeexalu laaraaf fi alquran di wax ne wa xilaaluhum bil xuduwi wal asaali foofa mooy sajada ba su fekkee da ngay jàng raax fa yàlla di waxee ne wa yafaluuna maa yuumaruuna foofa mooy sajada ba buy nax li nag ma ngi koy jàngee ca wa yaziduhum xusuan suratul israa yi yaa ngi koy jàngee xaru su gëdam wa bukki yan ca maryama inna laa yafalu maa yashaau ca xaj ji wa faalul xayra laallakum tuflihuna xaj ji ñaar la mais Malik bu njëkk bi rek la jël fasaaduhum nufuran ca furqaan rabbil arshil azim noona wa sabbihu bi hamdi rabbihum laa yastakbiruna sajada wa xara raakian wa anaab ca saat moom ngay sujoot in kuntumu iyaawu taabuduna demaat demeet layes amoon na ñu ne foofa la ñenn ñu ne in kuntumu iyaahu ta'budun ca fusilat la najm mi nag Maalik jëlu ko eh, dégg nga wa izaa quri'a alayhimul qur'aan laa yasjuduuna Maalik jëlu ko wasjud waqtarib Maalik jëlu ko moo tax kon sajada yi ci mazhabu Maalik fukk la tabaarakallaahu ak benn léegi nag fukk yoog benn yooyu dañ koy su si lañ koy su boba nak bu la fekke nga nek ci sa auto wala ci sa avion man nga ko sujjo ci bir avion ba dang koy junj rek mu gëna suuf su ko defé kon nak sujjo ko sa iblis day joy yu ne man toroxna doom doomu digal nañ ko mu sujjo sujjo na ñeel nako hal jana man digal nañ ma ma sujjo bañ na man iblis waral nako safara dafay wax ne umira ibnu aadama bi sujudi fa sajada fa lahul janna wa umirtu bi sujudi walam asjud fa liyan naaru kon sujudu tilaawa am na doole waaye am na sujudu sukkuri sujudu sukkuri mooy su fekkee ne dañ laa bégal ci xibaar loo bëggoon mu am far mu am walla loo bëggatoon mu am mu bëggale ne loola farut am nga doon rekk sujootal yàlla ci sant ko kooku mooy suñatu sukkuri lu amaam am la boo ko teg li xew léegi nag gis naa mbër yi ku ci daan sax su jóot daan fa war su jóot yow ba nga demee su meeku di bëri rek nga daanu même boo daanee daanu nga looy su jóotati léegi-léegi nga gis nit ki tamit dugal bii di su jóot ku la su jóot loo damay julli gi tàkkusaan door a dugg ci terrain ba sax bu mënee ñàkk kon ah, bég daal ci lu jar bég waaye kuy bég ci lu jarut bég loola kenn waru caa su sujjóot nag bu fekkee sujjóotu tilaawa wala boo sujjóotee lii ngay wax allahuma uxtut anni biha wisran waktub li biha ajran waj'alha li indaka zuxran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika daawuda lii ngay wax boo rotee sujjóot yomb na lool ilimaan ju la gën a jege boo demee mu jàngal la ko li nga mën fexe ba dugal sa carte crédit bi xam bonus baag la ca tegu message yi la envoyé genn wala ti genn walam boko jaaré da nga da nga xam li allahumma uhtut anni biha wisran kutub li biha ajran waj'alha li 'indaka zuhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika daud kon li lañuy rot bu roté li lañuy sujjoot mom lañuy jang bu melni timit amna ci julli julli guñu tuddé salatu hifzil quran julli go xamé dang ko def ngir daal bu la mokkal jafee rawatina alquran téere bu mag la ah ponk la koy dëkk de waaye ponk la koy daan kum neex nga dëkk ko waaye ponkal rek moo ko mën a daan ku yàlla may nga mokkal alquran mën koo bind doo ko xool aaya bu nit wax nga ne ko ma ngi ca saar sàngam ca hisib sàngam billaahi ko gisati foog ne moo la tene tuutil nga lu yàlla réer réer nga lu yàlla tuutil loolu la Aboubacar Siddiq waxoon xéewal gu day ne alquran ku ko yàlla jox ngay ñeexati kenn yow de yaa ngi ñeexe ci lu xeebu boole koog tamit xeeb loo xam ne nii lu lu lu màgg a la. boo ko mokkalu tamit yàlla may la doom yu ko mokkal mokkal nga ko ndax doom maam laa jab laa gis ne la tudd doom du moomam la tudd loo mënut bu ko sa doom manee rek mën nga ko moo tax loo ñàkk. dama koy wax toujours ci ngénte yi ne lu nit ñak fekk xam na doom rek ñakut ko waye lo ñak ba nga ñaké dom nga ko ñak waye lo ñak bo xamé dom rek ñak koko ñaata fi nek ño xamné xamuñu won dara dum nañ ba haduna neeg bu baax sax mënuñ ko xam yalla may leen ay dom yu tabaxé ay étage kon ñom xam nañ ay étage balen bu baleen yàlla maye yu ko xam rek lañ ko xam ñaata fi nek dépense bu sax mënuñ ko am mën nañoo toog ñetti fan buñ taal cin yalla jox leen doom yo xamne ne milliardaire lañ amé nañ lo ko jundé ngi di leen jox dépense kon ñom ñoña amé nañ milliard ke seen xam ak doom ji ñaata fi nekkon seen baye di politique ba mam ya sonu ci lol ba génn àdduna mu suñ dégg ndomba tank yalla may la nga dégg ay ndomba tank kon sa baye momu tak nako ko ndax bañ ko takké la ko nit ku nekk fi tamit ñàkk xam-xam lu ne jàng na ko ta xam dara yàlla may ko doom yoo xam xam-xam kon kay moom xam na xam-xam loolu tax nag li ma wax lépp ak li ma waxut yonent bi tënk ko ci benn xadis ne al waladu min kasbi abihi doom ci fàggu teefu baayam la bokk moo tax loo xam-xamoo ko sa baay ko xam yow sa nguuroog baay nga soo mënee alquran jub ragali yàlla di sàmm ki sa bopp di wut sa nguur ak baay la moom mi la jur yar la ca loola. yow nak kañ ngay xam ngóora bo demé ba xam dom yu mel ni nga mel djub ragal yalla nga xam li su le sa bàyyi lebaloon fay nga ko say dom ndax nit ku nek dafa wara yegne deret ji dañ ko ko xabal waru ko yak deret du dara xable rek la ak habu ken du ko yak sa bàyyi xabal la deret mamam xabal la ko ñu ko nga ñew diko yak ci ak gore hadi nga ñew diko yak ci ak njaalo nga ñew diko yak ci ak sàcc nga ñew diko yak ci lek hal li jambo xamoo sa bop li la xabal yak nga ko su boba nag dang ko yak dor diko di su boba musiba am kon dereet ak habla ak xabale la wadiya la waru ko sagane nit du jaay am nit du foye bopam ndax amo lo sa bop kon alquran ngoog amna ñaan go xamne boko ñaané dang ko mokal waaye andal jangade suma alquran rek yobuna yeneen ci dess yeb ndax lepp lu ñuy jang diko mokal alquran ci gëna jafé jafe mokalé lo man tam mokal ci ci yaw la motax mam khalifa dafa daan wax né xalé gal la xalé bato la loko ko hatta nako kon nañ suf suñ doon bu ñu xamati jot nañ leen sëf ñu jang alquran mokal ko nañ leen ñu jang bukhari yo muslim mokal ko nañ leen kutubusunai mbolim kutubu sunna yi ñi mokal ko nañ leen sëf ñi man français ak anglais ndax ñi xam seen jamono nañ leen sëf ñi xam àdduna ndax kenn du leen mën a fëkk kenn du leen mën a nax ndax xale daal batala loo ko sëf àttal na ko kon julli ngir mokkal alquran am na solo xadis la bopp Abdullah ibnu Abbas mu ne ñun dañoo toogoon rek ba ñu toogee rek ca yonantu ba sallallahu alayhi wa sallam rek Aliyun Abi Talib ñëwal ko mu ne ko ba ko Aliyu ñëwal na ko bi abi anta wa ummi تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه فقال رسول الله يا أبا الحسن أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك قال أجل يا رسول الله فعلمني ñu ibnu abbas wax na dañu tok ben bis rek ci yonentu ba ali ibn abi talib ñew ne ko man dal luma xam fatte ko alquran ji dal dar ramanta sax ci sama dund bi luma jang tay bu suwama fatte ko kon li may bëgg wax dana jariñ kep ko xamne lo xam fatte ko ndax lo ko xamne lo xam fatte ko li nga xam du sa kan duñ fekkante du jariñ waye nak ko xamne lo xam mu sax donte ben bat la bu yàggee rek la sax ndax boo doon menn xat nga jàng sax danga xam lu mu néew ne trois cent soixante cinq baat ne làng woo ko def nga def ko ñaari xat danga ko dégg xat mu làng woo xam ne xat mu jot nga dégg ci ñetti téeméeri baat ak juróom benn fukk ak juróom waaye waaye bu nga xam làng kenn du la ci mën a jëwati waaye nag bu fekkee loo xam mu sax du du sax day dem du sakkanati waaye jàng tamit loo xam mu réer la loo jàng gaaw koo fàtte am na loo xam ne bu la ko gaaree nag ñaan gii ma bëgg a wax du la jariñ bu fekkee da ngay jàng di mooy yàlla mënoo ca dara dara dara loo jàng fàtte ko yaa ngi jàng bëgg a doxal sag ndaw nekk ci ak mooy yàlla li la neex mënoo ca dara diplôme yi ngay wuti doo ca am dara da ngay sonn rek wala boo ko xamee tamit doo ko jariñoo ndax kat imaamu Saafi'i yoo ko wax bi may jàng nekk ndaw bëgg doxal waxambaane lu ma jàng fàtte ko mënu maa fexe ba xam dara ma dem ci waqiya moy sama komande ma ko man de luma jang jàng ko waqiya ne ko da ngay subbi mbubam moy yalla sol mbubam ko defee loo xam ko motax muné shakawtu ila waqiya su a fa arshadni ila terkilmaasi, maasi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, wa nuru lahi la yuta li asi mu bima sumé ma summee mbubam sol ragal yalla luma xamati du ko fàtte ci la mujj gis nga ko ko tudd imaamu Malik sa xel daj imaamu Saafi ci xam-xamam bu bëri ba Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ab yaat yam doon wax di ko jumale ci xale yi tabaarakallaa muy bayt yu ama am solo naa'il kawaaciba wal gawaani waxtasil in tabnu minha min radan laa taslimu dem ba ne laa shakwa fa kun mutajallidan xatta taxuna annaasu annaka mun'imu yooyu yëpp ay ay abiyaat la yoo xam ne yu ama am njëriñ la ci képp kuy jàng nekk université mbaa ngay jàng nekk ci lycée yi mbaa ngay jàng nekk ci daara yi mbaa ngay jàng nekk ci majalis yi boo jëlee baytu yoo def ko muy sa ngànnaay xam-xam dana la yomb xam-xam leer la mooy yàlla lëndëm la leer nag ak lëndëm mënuñoo ànd da ngay dàqee leer gi ci lëndëm gi waaye mënoo dàqee lëndëm gi ci leer gi kon ku bëgg xam-xam da ngay bàyyi mooy yàlla waaye mooy yàlla xam-xam mënuñoo ànd boo ca di nas nasi man nga fee nekk dagale ay riwaayaat yu dul jeex te xam-xam duhul kasratu riwaaya fi sudur la utul ilma la loolu boo ko bëggee xam nag muy ak leer da ngay topp yàlla di ko sellal di def ndigle ya di bàyyi tere ya soo ko defee xam-xam yomb la moo tax kon bala maa wax ñaan gi nga koy copier ne dégg naa ku ko def da nga mokkal alquran ku ko def da nga am diplôme yi nga war am te na nga war a mel meloo ko du la tus boo melee ni nga war a mel nag bàyyil ba guddeeg àjjuma mooy alxamis ci guddi nga xaar xaar ba quatre heures de matin dem quatre heures de demi jëm ba ba ñuy salaatu foofa la saatun mashuda foofa ak ñaan loo fa ñaan yàlla nangu ko moom la yonent yàlla yaquba waxoon doomam ya sawfa astaghfiru lakum rabbi di di di dàkk waxtu wax soo demee ba foofa nag boko mané fofa gën waxtu salatu. 4 heures ba bañi salatu soko mënul nak timi nga julli jé rek nga def ko ba tey baax dara la kulli al ñenti Raka lay doon rakka bu jëk ba fatiha ngay jang ak suratu yasin raka am ñaarel ba nga jang fatiha ak hamim duxaan yi am ñettel ba nga jang fatiha ak alif lam mim tansil bu sajada ba raka am ñentel ba nga jang fatiha ak tabaraka al mufassal li kon moy ñenti sar yi ngay jang bo deme ba pare nak nga taya bo taya ba pare nga sant yalla bak yalla alhamdulillah la ilaha illa allah nga julli ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallama yalla julit jullit ñépp sa bop su paree na ba nga xam ñaan nga julli nga taya nga sëlmal nga def nga lépp ñaan nga door a wax nag ñaan gi allahuma irham nii bi tarkil maasi abadan ma abqayta nii warham nii an atakallafa ma laa yaanii nii warsuquni xusna nadri fi ma yurbika an nii allahuma badi'a samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بدع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق bihi lisani wa an tufarrija bihi an qalbi wa an tashraha bihi sadri wa an taghsila bihi badani fa innahu la yu'nini ala alhaq ghayruka wa la yu'tini illa anta wa la hawla wa quwwata illa billahi al-aliyyil azim ñaan gi ngay ñaan gannaaw bi nga julé ñent rak'aya bu ko defé nak e, yonentu bam ko joxé aliyu dafa ne ko li soko defé ñetti yoon ñetti aljuma wala nga def ko juróomi ajjuma mbaa nga def ko juróom-ñaari ajjuma gëñ naa ci yàlla mi ma yónni ne wallaahi dootoo xamati loo fàtte loo jàngati da nga ko xam Aliou nee na bi ma ko commencé gut mënumaa jàng lu paase juróomi baat juróomi aaya juróom-ñaari aaya waaye keroog ba ma yonent bi joxee ñaan gi amatul ku ma mën a joxati lu ma doy ki jàngal daal day joxe joxe joxe joxe joxe ba ne sonn na rek waaye man lu ñëw rek ma capté ko ah bi ma koy def daal ñaari àjjuma ñetti ajuma rek laa commencé gis résultat bi moom daal lu ma xam dootuma ko fàtteeti te kenn mënut maa joxati lu ma doy. moo tax ñu ne Ali ibn Abi Talib gannaaw eh, eh, yonantu bi juróom-benni weer la tëju mu njokk mu mokkal alquran ndax jamono yonantu bi yëpp fukki saar la mokkaloon xare yaa taxoon. bima mu appliqué lii nag gannaaw yonantu bi juróomi weer rek juróom benni weer rek mu mokkal alquran ci la kon ñaan gi solo képp koo xam ne yaa ngi gëstu xam-xam da nga yittewoo nga fexe koo xam fexe koo def soo ko defee yàlla dana la wan résultat wu ñaan gi waaye ala kulli haal nag ñaan gi li for foor foor soo ko defee te résultat ñaan nga fi mu de yow fi nga war a ne boo fa newut timit ñaan gi mom du ñew mukk di la fa fekk ci julli yu ñu yonent bi baye muy jang suñu jëf yu damu yi boole ko di yok suñu yiw yi julli gu ñu tuddé salatul janasa ci la bokk ak niw as-salatu alal janasat julli ko am doole la te ñun xéetu yalla muhammad dong ñoko am yonent yalla adama la muy for for xéetam waxamuñ ko won yonent yalla musa xéetam waxamuñ ko won ibrahima ak ñu ci xaju ñëpp ñun rek la yàlla jagleel julleeg néew lu ci yàlla jublu bëgg suñ jëf yi li ca damm julleeg néew gi ñëw jàng la ca dammut julleeg néew gi ñëw yokk ko julleeg néew njariñ la ci néew bi xamul benn néew buy ñeen fukki nit di ne duñ bokkaale yàlla lu dul ba yàlla dana ramu néew ba dugal ko aljana waaye tamit njëriñ la ci ña koy jullee yow mi boo jullee néew da nga ci jëlee dëddu ak àdduna da ci jàjjee ko ci bëgg àdduna ak pir ak yeneen ya ci xaju danga nga ci bàyyee ko tamit gën a fàggu ci lu baax ndax seede yiñ ko may nga xam ne lii def lu baax moo koy may mbooloo mi ak taxawaay bu rafet bii xam lu baax a koy may ka gën a dem lu ji ànd ak loolu tamit yeneen njëriñ la xalaa xiraa la boo fekkee julleeg néew jullee ga rek da nga am yool bu day ni jabalul uxud yéen ñi dem ma dintumu nawar gis nga nam toll te kat la cay feeñ la ca nëbboo ko xëpp dafa mel ni mbaxam na ci jëmm ñi poids bu toll noonu yëpp ñu def ko sa baskil ba àllaa xiraa da nga ko xam wala ñu soppi ko wurus nga saraxe ko ci yoonu yàlla yàlla nangu ko danga am yool bu day noonu bu mu ci ñaar yi baax nag yëpp a bëri boo fekkee julli nga fekkee rob ga nag nga am ñaar yëpp yu tol ñaari toll noona boo fekkee nag ci ñaar yi benn nga am benn bu toll noona kon nga xam ne kon julleeg néew njariñ la ci timit ña koy jullee waaye njariñ la timit ci néew bi néew dana dem nekk koo xam ne bon na lool ñu seen batterie mu vidd yàlla branché ko ci limaan ji mu branché ko ca maamoom ya ñaan yaag jullee yóbbu ko mu dem aljana rawatina nag seede ya taxawalam niw sang loo ca jublu damaa bëgg yàlla setal ko ci bàkkaar liñ ko setalee nii tey ci yaramam wi nga pare sàng loo ca jublu damaa bëgg yàlla suturaal ko ni ko yërëm bii ñu xottil ko muy bu bees suturaalee ak suuf si ñu koy suul ni ñu ko suturaalee nga ci timit teg ko door a commencé seede kam nga ne booy seede yàlla dafa lay jaay rek waaye yow mënoo seede nit nit dafa lëndëm nit moom léegi-léegi mu wax la lam waxut la wax te yow mënoo koo xam nit dafa lëndëm léeg-léeg mu wan la te fekk na image bi mu la wan ba mu nëbbu la la moom la doon fekk na li mu wane duhut moom moo tax yàlla rek a xam nit moo tax bu nit deeyaate nga may leen ma ma seede ko déedéet wax ju yàqu la ne leen may leen ma seede si ndax koo xamee ne nii mën naa dugg foo duggut foo ko mën a seede koo xamee ne nii mën naa wax loo déggut foo ko mën a seede mën naa jëf loo gisul foko ko sédé bayiko ki nga xamné fu mu dugg mu nekk fa ak mom ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabiuhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum kookaa ko mën sédé mu yàlla rabbul izzati wal jabarut bayiko ki nga xamné ne moo sédé mën lu muy wax lépp ma dégg na ko lam waxagul sax dégg nako ko sirra wa akhfa motax yalla yàllaa sédé motax mu ne bàyyi ma sédé wa kafa billahi shahidan waaye nag léegi suñu néew yu bëri bu ñu kenn ku ne ju mayoo ma wax mayoo ma wax may ma wax ba far yàq jotaay ba seedeem néew ñaar doy na ca kenn ca mbokk ya kenn ca dëkkandoor ya ku say dëkkandoor seede lu baax say mbokk seede lu baax doy na ànd ak loolu lépp nag bu ñu seedee ba pare seede ga dañ nañ wax lu baax luñ xam rek ku fi yàgg yàggee fi ku fi yàgg ku ne xam nga lu bon xam nga lu baax lu bon la nañ ca nëbbu ndax fàddu na ku dee dafa mel ni ku la wan gannaaw waroo koo jëw motax ñu ne kon nak waxal lu baax lo xamne bu doon dund dang ko mëna wax ndax ka yalla neena ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayitan fakaritumu tabir ki dee ba pare ngay waxat ci mom lu rafetul koku wax deug yalla jew la motax mu ne wax len lu rafet la rek te noppi ci lu bon la donte xam nga lu bon bu ko wax tay du place am waxal lu rafet rek suñu waxe nak wax je bëri ki ñëw sédé ku bëgg ndor ku bëgg alquran ku mëna jokk bokku ku tabé ngi ni malaaka ya bind yóbbul yàlla yàlla xool dossier ba ne li ma xam ci moom ak ña dëkkoon ak moom liñ xam ci moom duñ benn waaye nag bàyyi naa li ma xam danaa ko xatte ci li ngeen xam looloo tax ñi dem aljana waaye ku yàlla ci lim xam ci yow nga dem safara kenn ku ne yaa nga caay-caay ak dëngate goo xam ne yàlla xam na ko ci yow kenn xamu ko ku dul moom bu la ci xatte nga dem safara waaye seede yi nag néew yi seedante ci lay yàllay bàyyee lim xam dëgg ci lim xam xatte néew bi mu dem aljana kon loolu am na njëriñ jarta doole la kon julleeg néew a ngoog la ci néew bi njëriñ la ca ña koy jullee yi wuréy wañ cay jëlee xam na doole sallallahu alayhi wa dafa daan wax ne ma min rajulin muslimin yamuutu fa yaqumu ala janasatihi arbaun rajulan laa yusrikuuna billaahi shay'an illaa shafaahumullaahu fiihi amul benn néew boo xam ne dee na ñeent fukki nit jullee ko problème ba nag mooy ñoo xam ne duñ bokkaale yàlla xam nga bokkaale yàlla foo bari ci jamono de wa maa ak aktharuhum billaahi illaa hum musrikuuna mu ne ñeent fukki nit ñu la jullee kenn bokkaale wut yàlla buñ koy jullee rek yàlla di ramu néew ba ci ñoom yàlla na nangu seen ramu ci moom ñu dem aljana julleeg néew nag kenn du ko noddu kenn du ko liqaamal kenn du ko jàng alquran ci bu Malik buy saafiyu dañ jàng fatiha julleeg néew ñeenti kabar la buy limaan ja juumee andi juróomeel su sëlmal leen bu leen ko xaar loolu mooy li gën a siiw ci bu Malik su fekkee dafa juum def ñetteel sëlmal nañ mottali indi bu ñeenteel door a sëlmal am ñu ne nañ ko sàbbaal mu indi bu ñeenteel mu sëlmal ñu door sëlmal waaye daal li gën a siiw ci mazhab bi mooy ñaar yooyu ma wax la jullee néew nag ñeenti ponk yëpp euh, ponk yu dëgër la euh, xéene gi ngir jullee ponk la ca mënta ñàkk kàbbaar di ñeent ponk la ca ñaan yi ngay ñaan ci diggante kàbbaar yi muy allahuma innahu abduka ponk la ca sëlmal ba timit ponk la ca fardu kifaaya la bu ko ñenn ñu taxawee ca gox ba mu wàcc ñëpp bu ko kenn taxawewut waa gox ba gàddu bàkkaar ba kon nag nañu dagg soxla yi bu ñu déé ñi dem ca ñay sang ndax sang gi ngay sang neew bi dana la fatali bo dé niñ lay sangé xenu gi ngay xenu neew bi dana la fatali bo dé ci xenu lay xenu tëral neew bi diko dana la fatali bo dé sédé yi lay sédé gas gi ngay gas pax dana sédé di lay gasalé pax ma sañ lay soti bo dé dana la fatali loola nga fàttaliku sa bop motax may waxtu surné bëgg ko la top jërul jërul liggéey kenn jërul soxore kenn jërul gaariwaale kenn ku bëgg ku la topp deyal ku dee xam ku la topp ak loo ñàkk-ñàkk daraja dañ la jox daraja joo xam ne ba ngay dund mosoo koo xam te kenn mosu koo xam tamit bëgg daraja yeggagut ci maa ngi nii sang leen ma kenn yeggagut ci nag kenn ku ne yaay sang sa bopp fekk yaa ngi koy man kuñ sang rek xamoo bi la gënal yow nag comme ngaa bëgg daraja rek waaye deexal boo dee gaa yi sang la bëgg yegg yeggagut ci waaw sang ngeen ma kay leen soral ma yere yu bes ma koy dalo ma koy rappal yow nak comme da nga bëgg ku la solal yere ngir sa ja deyal bo de gaay solal la yere yu bes tak bëgg yegg yeggagut ci kay leen henuma deyal bo de gaay henu la di si kar bëgg yegg ci nak yeena ngi ni tagg leen ma lu ngeen xam ci man lu bon bu ko fi kenn waxee li ngeen xam ci man lu baax wax leen ko kooku ku ko bëgg deexal boo deexee lu bon la nga doon def kenn du ci wax dara lu rafet rek la ñuy wax waaye gars bañ keroog bañ la sangee sañ-sañ la yanu la tagg la jullee la xenu xaat la cay fañ lay jëmee mooy asfala safirina mooy gas pax ba mu xóor rek ñu jarañ la fa sotti la suuf dem raxasu ji mbaa ñu dem reer yi mbaa ñu dem ndékki ji mbooloo moom nga xamoon moo tax ma sa mbooloom bopp la nit ku nekk menn mbooloo nga xam mooy sa mbooloom dëj yaa tax nit ñi ñëw yenn tax tax ya nag doom dana tax mbokk dana tax dëkkandoor dana tax waaye tax tax yëpp mi ngi soqi mi ngi jëm si ci yaw buñ ko daqee waaye mbooloo moo waxati nga dagale leen ci turu nii rek nga ko dagalee amul leneen mbooloo moo fi dagale nga ne gàmm mbooloo maa ko bëri waaye waaye loo ca moom gàmm gi yonent bi nga ko wooteel kon moomoo ko turu nii nga ko dagalee mu Seydunaa Muhammad loo xoote nga ne man kat dama woote mbooloom diine conférence ci wàllu yàlla kon ci yàlla nga leen mbooloo ma moomoo ko mbooloo yi ñu mbooloom jàmbur la menn mbooloo li ci am mooy mbooloom dee keroog bam dee moo tax sa keroog bam dee moom la xam bu fa gaa yi nekkee takk rajo yi bëgg a waaraati rek gaa yi takk sareet ya ñu taal oto ya jëm won leen gannaaw ndax euh, lañ leen taxoon a ñëw jeex na mëntuñ faa ci di xaar na toog leen nangam nangam tuuti ci des kenn du la faale. kon debu ko la top jeul xaskian jeul jërul der jeul liggey nit jeul soxore ku debu ko la top deexal ku dee ko la top jox la daraja jo xamne da ngay dund muso ko xam waye jo fu muy mujj nak moy toroxal rek moy soti la suuf wan la gannaaw dem dem añi dem reer yi kon julleeg néewa ngok yalla ko jaglel xetu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam ngir ñaari yef mu yok suñu hiwi waye timit pour mu jang suñu jëm fi damu yi lu xam am solo la ñaan yaag yi ci aju yooyu yëpp tamit euh, nit ku ne li nga xam rek nga mën a dimbale yàlla dafa ne rek wa taawanu alal biri wa taqwa waaye waaye di leen dimbalante teg ko ci cadre ragal yàlla ak mbaax yow su fekkee nag sa dimbal ci nit ki mooy xaalis nga am dimbale ko ko. Kam-kam nga xam jox ko ko daraja nga xam yóbbuwaale ko ca ñaan nga xam jox ko ko new bi deena Lah ki de deug nak mo gëna soxlo ko ko dimbalé ndax mi ngi ta man ta julli xor man ta jàng alquran ta joxe asaka sang sanggegak, sang ga jullee ga sul ga wàccee kamil yaag lepp dimbal la ca mom kenn waru ko weddi ku koy weddi bo deexee da nga bëgg ku la ko defal nga bëgg ñu sul de ñu ne jàngaleen ko qulwa jàng qulwa ñu naan armel kenn du ci jàngal alquran ku la ko wax yonentu mos naa yóbbu benn ñàngal ci xare fu ñu toog rek ñu dégg kuy jàng suratu tabaaraka ñu dem ci yonentu bi wax ko ko ñu ne ko dégg nañ ci biir bàmmeel bi fi ñu toogoon muy jàng suratul mulki mu ne waaw moom dafay musal nit ki ci lëndëm ak bàmmeel ñu ne kon biir yi almeel ci biir bàmmeel bu fa nit nekkee ca biiram di jàng alquran te nekk ca kawam kay kenn du ko teree mu jàng ko dara nekkut ca Ibnu Omar waxoon na ne su ma génnee àdduna nañ ma jàngal suratul baqara sama bopp bi te deewoon na ba mu doone su ma génnee àdduna te néew la kon yooyu yëpp jarta dàq léeg-léeg nit ki dàq ko waaye bu ca toll rek koo ko defal lu xam solo la. julleeg néew yéen la ñeel jullit ñi moom la yonent alquran wax ko ne ko wasalli alayhim inna salaataka sakanun lahum yow yonent bii del jullee sa saaba yi sag jullee ci ñoom yërmande la ca diñ cay déggee nag kilifa gune di ab sëriñ. ay taalibeem yaakaar ko boo santaane mbay ñi dem nga santaane gi ñi dem nga santaane gasam gerte ñi dem nga xoote xew yoo mën a doon ñu dagg seen yitte yi ñoom buñ dee daggal sa yitte yi dem jullee leen ndax loolu dana dalal xelu njaboot gañ fa bàyyi inna salaataka sakanun lahum am na koo xam ne bu ko musiba dalee ci kawam kam war a gis bu ko gisee rek musiba ma day soppeeku bànneex moo tax léeg-léeg bànneex soppeeku naqar léeg-léeg naqar soppeeku bànneex banex lu di ay ñam yu ñu togg ci ngenté ci ciet ci lu mëna don lu mu rëy rëy ak lu mu neex neex buñ ko xëccu rek banex ba soppé ko na musiba musiba lu mu rëy rëy bu ko ñëpp bokké xenu kenn ku ne ka nga war gis-gis ko mu jës ke ndimbalam na mu gi soppé ko bànneex dootu ko yëgëti da ngay sa ci xew nga nekk kon nak suñ musiba yi ko soppi dañu soppi suñ banex yi timit musiba ndax lool timit musiba rek lañuy jural ñi bayyi ci xel bu baaxa baaxa baax julleeg nii wax am na doole ci ki ko fekkee julleeg nii wax am na doole ci ko fekkee rob ga julleeg nii nag jigéen ñi mën nañ koo fekkee yàqu dara nañ nekk ci sàpp ja gannaaw rek xayru sufuufi nisaa'i axiruha la yonent bi waxoon wa charruha awaluha xayru sufuufi rijaali awaluha wa charruha kon jigéen ñi mën nañoo fekkee julleeg néew liñ ban rek mooy ñuy gunge néew jëm ca armeel ya tere nañ leen ko waruñoo dem foofa waaye nekk ci jàkka ya ñu indi néew ba ñu nekk ca gannaaw fekkee jullee ga dara néew ci dagan na kon julleeg néew a ngoog su jootu tilaawa wax naa la ko moom la lislaam maye nañ moytandi ko nag su jootu bëgg na tamit su jootu sukkuri su sant yàlla ñu bëggal la ci loo bëggoon mu am wala ñu bëggal la loo bëggatoon mu am nga sant yàlla rek root su santee ko yàlla xéewal gu rëy rëy la waaye nag nañ moytandi ko nag limay gis mbeureum madam ma daan dem di sujooti sujoo do lum tuddu yow kay ba nga ko di bëri rek même bo daané daanu nga loy sujootati dugal bi di football ba paré bég di sujoot loy sujoot boy bég bég ci lu jëra a bég lu jërul bég kenn du ci bég kon bu ñuy bégati nañuy bég ci lu jëra a lepp lo xamna xam ne nak bég koy moytandiku ndax kat nit du nit du bopam kon julliya ngok amna